Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de les merci de vous abonner, merci également d'y laisser les commentaires. Un plaisir voler chaque fois de partager des informations. Un bokk Sénégal il fii fële maintenant 14 régions du Sénégal à dina wërgal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci l'hôpital hôpital yi ci de février, tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngay wër jàmm. ñi nekk ci kaso yi nga xam ne également erreur judiciaire ak yi ngeen di deful mën a fa yóbbu suñu borom génne fa teg leen ci yoonu dëgg ñi dëddu àdduna suñu borom également xare leen àjjana fi daw si gars on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu les deux Kaiser hein, se sont rencontrés Moi, ki nga xam ne nag mooy Sadio Mané Robert Lewandowski et ñuy aussi Emmanuel Manuel Neuer qui est content de la venue de ki nga xam ne nag mooy kii Sadio Mané Manuel Neuer ne dafa content ci ñëw Sadio Mané loolu la ñuy fas mais d'abord, il gars a dañuy wax ci maillot extérieur bu Manchester City champion en titre de la Premier League donc maillot bi ni donc maillot officiel bi Ronaldo naa du ko bu euh, par rapport au fil bi Footy Headlines moo donc maillot bi le Manchester City de Pep Guardiola va porter pour la saison 2022-2023. Sima qui signe du côté de SCO Angers Mingini, ah, donc la pépite sénégalaise Abdallah Sima Gardanak. ne ah, moment commencé woon nañ fi coup du groupe équipe nationale du Sénégal mais entre temps mu am blessure et tout demande na fi Angleterre fini mu ne nii nag dafa ñëw ñu SCO Angers Sima. on espère que voilà 9 mois de l'année, ba aussi ñu war équipe nationale du Sénégal Franck Kessié gars yi ñëw na fa donc Barça étonné donc sur le plan physique mais également sur le plan technique parce que gars a dañuy jàpp ne ñu technique mais il a ébahi il a ébahi les dirigeants donc de, FC Barcelone Franck Kessier, l'Ivoirien Sadio Mané Fekmané le 21 juillet bi Gaï ballon d'or meilleur joueur africain de l'année loolu nañ ci dellu si jox leen si également yenn détails yi par rapport li nga xam ne nag point bo xam Sadio Mané wan na aussi c'est une très grande personne mais aussi que le Bayern est une très grande équipe Idrissa Gana Gueye hein. donc euh, ñi ngi wax né dafa wara a dem Galatasaray ou bien Galatasaray dafa nako proposition mais Idrissa Gana Gueye selon le yene kaay bi di l'équipe nak né nañ Idrissa Gana Gueye dafa jël décision né mom du dem fenn da fay tok da fay tok fi nga xam moy Paris Saint-Germain euh, but contre am diex wala bo mu gis équipe bo xam équipe bu mag a pour doolu fay dem ki nga xam Paul Pogba qui li tax ma si fi nga Juventus de Turin dama bëgg a né joueur la dama bëgg même même si Manchester United il pas heureux nga Paul Pogba half time gars premier mi-temps mais finalement li nga xamné moy donc ñi di wa euh, Manchester United ils ont atomisé l'équipe de River de Liverpool de ki nga xam ne nag donc Yor Gol Club xam naa sénégalais dañ commencé wax ñew Sadio Mané nekk fa et tout mais en tout cas euh, match le de d'exhibition la ils ont gagné Bruno Fernandes tay moom moo nekkoon li nga xamné tay mom moy donc homme du match gis ngeen ko premier mi-temps avec 3-0 après 4 donc euh, ñi di Manchester United ñu ci won ben dina belle dynamique hein. comme on dit ils sont sur une belle et bonne dynamique ak ki nga xamné nak moy donc kii di Cristiano Ronaldo selon le journal journal RMC ñoom nee nañ di Cristiano Ronaldo nag dafa proposer un service am du côté du Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain ne Cristiano respecté les lois et fi mu ne nii ñun dañoo am problème effectif donc mënuñu la jël loolu la wax Cristiano Ronaldo actuellement il est en train de se chercher un club mais vous faites que Tan Hag nee Cristiano Ronaldo n'est pas un joueur à vendre Ken du ko jaay waxtaan ki nga Cristiano Ronaldo avant new york problème bi mais au daf de wax ne projet bi moo ko wan séduire et bëgg na toog mais pendant ce temps aussi ki nga aujourd'hui ah, il doit revoir sa carte moi ki nga mooy donc Jurgen club ni mu ŋaangee ni ah lu xew loolu la mel ne kuy wax lan mo xew qu'est-ce qui se passe lan mo manque ci équipe bi bon li manque ci équipe bi c'est juste que ne voilà am ko dem ci équipe bi donc aujourd'hui on dit pas qu'il n'est pas qu'il est irremplaçable mais pour nga remplacer aussi ça va prendre un peu de temps mais pour man Liverpool dina wat boppam dëggantaan parce que c'est une très très grande équipe Raheem Sterling qui a signé wax naa ko Fabrizio Romano nee na tout est fait il a signé son contrat du côté de man de Chelsea pour cinq ans mom nak day dem ca de Angeles nga xamné fa la Edouard Mendy di jamono ji pour près saison donc du côté du Bayern Dominique, comme vous le voyez Leroy Sané le roi Sané comme vous le savez le fils de Soleiman Sané le numéro 10 hein, du Bayern de Munich mon le de maillot numéro 10 le Sadio Mané Sadio ne le euh, numéro bi moy numéro 17 donc aujourd'hui le roi Sané reprend aussi li nga xamné moy entraînement du côté de la Bavière mais également que dire de mur de Gorée ki nga xamné nak moy Manuel Neuer content très content même de la venue de Sadio Mané Fekk Mané son bourreau Content na ci bourreau bi nga xamné ne sonalon ci Ligue des Champions dougalon ko bii graw graw dal di du côté du Bayern de Munich mais également Thor Robert Lewandowski ñëw na du côté de la Bavière mom nak dafa sans sa famille lu tax mu sans sa famille gars yi Robert Lewandowski néna a ay njabootam dañ ko menacé par rapport li mu wax ne moom dafa bëgg jógee Bayern de Munich tax mu daal di yegg si ba dafa ne yi tout va bien tout va bien même si bo nekkee ne xel bi ni ñu koy waxee picc nga ci kaw xel ma nga ci souf mom gis-gisam moy dem du côté euh, du FC Barcelone le Bayern Munich, même nak dañuy demander 60 à 70 millions lañuy laaj Barça nak maximum 50 millions lor la leen di leen di Lewandowski qui a rencontré qui Kaiser Sadio magnifique Mané l'enfant de Babali rencontré na waxon na lako ko gars yi peut être ñu nañ ay mbalag lay tout ils se sont rencontrés ils ont discuté gis nga leen fini ñu tok waxtaan après entraînement yi donc. Robert Lewandowski et Sadio Magnifique Mané. On espère que Lewandowski, sincèrement, ce serait un beau dieu de voir Kaiser Mané évoluer aux côtés du Polonais. Ah, Sénégal, durun, Coupe du Monde 2018, on s'en rappelle, en Russie, Sadio Magnifique Mané, il est en train de prendre ses marques du côté de la Bavière, Kaiser Bavière, Allianz Arena, Kaiser Mané au niveau de la Bavière, Allianz Arena, Dina Gai Et comme j'ai dit encore, d'autres informations, toujours en plaisir de vous servir, Gaï. On avance ensemble dans la machine eSport TV, mais Langen Khalat, euh, Lewandowski, est-ce que vous pensez que dafa war tok Bayern Dominique forme duo exceptionnel avec Sadio magnifique Kaiser Marie ou alors da ngeen gis ne dafa du côté du FC Barcelone entre autres mais également que pensez-vous de du choix de Kim nga un de Idrissa Gana Gueye hein, selon les informations Paris Saint-Germain va contrat pour jeex mu daal ou dem gars yi like abonné on avance ensemble dans la magie de eSport TV game tchouf